dafa sant yàlla ndax wax nañu ne booy bind li nga war a njëkk a def mooy sant yàlla te sant yàlla dafa bokk ci maqaama yi nga xam ne yu kowe yi la moo yàlla sax dem na ba ne yéen nit ñi na ngeen ma sant mu utilise impératif dëgg la na ngeen ma sant ndax la in shakartum la azidannakum mu daal di sant yàlla ci boppu téere bi yow mi toog ci kanam écran bi loolu la njëkk a def yàlla moomu nga xam ne moo ko jàppandalal lépp fii ci àdduna ak fa ñu jëm moo ko koy jàppandalal mu sant ko bi mu ko santee ba noppi nag mu mu ñaan yàlla mu jullil ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga loolu dafa rëy mooy yàlla jullil ma ci yonent bi mooy salli mm-hmm. impératif la ci grammaire dañ lay wax ne su fekkee ki joxe ndigal li moo fare suuf mu jox ko koo xam ne moo ko fare kaw kooku dañ koy tudde iltimaas moo tax nga naan s'il vous jox ma nangam moo tax nga naan jéggal ma suñ mag ñi loolu la ñuy wax jox ma nangam jullig yàlla ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy mu yërëm ko wala mu jéggal ko macha allah kon cheikhul xaju malik radiallahu anhu bi nga xamee ne sant na yàlla ba noppi mm-hmm. daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga jullil ma ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy mu nga yërëmal ma ko mooy nga jéggalal ma ko bi mu ci jógee mu ne yàlla gis nga julli gi ma lay sàkku nga defal ma ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga nu muy mel ñu ne ko déedéet mu ne day doon julli goo xam ne dafay yemook ñi nga xam ne ñooy ñooñ yàlla yàlla jagoo leen te yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadiis daf ne inna lillahi ahliina min annaas yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na yàlla nee na moom am na ay nitam qaalu ya rasulallahi man hum saxaaba yi ne ko ñooñu ñaana qaala hum ahlu lqur'ani hum ahlullahi wa xaasatuhu mu ne ñi nga xam ne ñooy jàng alqur'an di ko jàngale wante di jëfeli alqur'an wax ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jagle yàlla ñoom ñooy njabootu yàlla maam Cheikhul Hadj Malick nag ne ñooñu nga xam ne yàlla moo leen jël jagleel leen boppam julli ya ñuy julli mm-hmm. dama bëgg nga boole yooya yépp ak sa julli yow yàlla nga jullil ma ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muhammadu kenn xamul nu mu tell ahlul mahabba ñëw na ci xadiis mm-hmm. mooy ahlu dikir yi ahlu mahabbat yi ci xadiisul qudsi yonent bi alayhi salaatu moo ko jële ci yàlla mm-hmm. yàlla nee na ñi may tudd ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ma sopp yow mi toog ci kanam écran Malikiya TV leeru Maodo nga xam ne si kër yépp bi ci gën mhm. mooy jàng alquranul karim maam cheikhul hajju Malik radiallahu anhu indi na ko ci kifaayatu raagibin mhm. bi mu ci jógee nag Mouhamadou Mbuub dafa ñëw ci lu ñuy wax alxaqiqatul muhammadiya muy dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga loolu dafa soxal mutasawifuuna yi mhm. deug deug yonent bi moy leer gogou la lumière tabernacle bi nga xamne ken xamut lan la nga xamne dana la ko indil ci bir nan la nurun ahata bihi al anwar man ko don def ben illustration ci ben plateau bu ñu amoon fii ci laa doon wane alxaqiqatul muhammadiyya muy la lumière centrale bi nga xamne ay leer moko encercler ba leer gogou yow munu lo ci yegsi koku kooku mooy alxaqiqatul muhammadi muy deug deug yonent bi alayhi salatu wa salaam kenn mënu ko xam. motax leer googu ñom def leen yittel ñu diko wër. so deme Cheikhul Hadj malik fenn fu ci nek wër nako fa. muy ci nuniya muy ci khilas muy ci abada buruq muy ci yede di tere motax imam imaamu mom moom daf ne. la ya'rifu allah illa allah jalla kama la ya'rifu illa allah mune yàlla ken mom rek mo meuna xam yonent bi alayhi salatu wa salaam kon nak moy xaqiqatul muhammadiyya bi nga xamne kenn munu ko xam muy deug deug yi yonnati bi alayhi salatu wasalaam bi mu ci joge mu ne planète bi ñu nek yàlla mi ngi ko binde ci leeru yonnati bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamne leer bobu moy ciosan bim ci joge nak mu ne gis nga leer gogu la ta muy transformer wu di nek être humain nga di ko jàng ci jawharatul kamal al mutakawwinatil adami muy lumière bi transformé wu nekk être humain nee na balaa mu koy nekk leer googu yàlla def ci dugal ay xeeti xam-xam xeeti mbaax mooy fi lay wax naan ca xilaas dafa dugg ci ay géeji leer leer gi day génne ci leer géeju leer duggaat ci beneen géeju leer muy leeri xam-xam leeri xam yàlla leeri xam booy wax lu leer lay doon lu gàtt lay doon leeri mbaax مديكو ديندي تي لير يوي دوكو دوغال تي اي لير وانت ايتام تي بير قصيده بي داف تي دوغال جورومي خيتي فاصو جولي ماغني صاح داني واخ ني سيكريت بي نيك تي بير وسيله المنى موي تيسير فوف لا نيك نون يوي تاخو نيو جوك دافا واخنا صلاه لا انتهاء لها مون يالا داما لاي نيان غا تولي ما تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام جولي غو خامني امول فومو يم bi mu ñëwee ci téere boobu tudde na yonent bi alayhi salaatu wasalaam weer wi mhm. soo demee ci xilaas tudde na ko badar mooy fukki fan ak juróom ñeent mhm. di guddi fukki fan ak juróom nga xam ne weer wi dafay ron dafay fekk mat na mhm. nga xam ne la laan dafay tàmbali di wàññeeku mais ci gën a yéeme yow mi toog ci kanam écran Malikia TV ci biir Taysiir Cheikh El Hadj Malick def ne yow yàlla dama bëgg nga jullil ma ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli go xamne ne ihatati almi llah manam julli go xamne xam-xamu yàlla ni mu tollu julli ga nona lay tollu est toll mais xoolal loolu lolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam limam cheikhul hajj malik wax radiyallahu anhu ci mom ci wàllu jikko ci wàllu nangam ak nangam doo gis keneen ko waxuñu ko ñun par parloo ñun dépassé nañu loolu dëgg la waaye bu ne adda ihaatati almillaahi allaahu yàlla dama bëgg nga jullil ma ci yonent bi julli gu mat goo xam ne day toll ni sa xam-xam xam-xamu yàlla amul fu mu tàmbulee amul fu mu yem wa fawqa kulli di almin